ne leen Macky Sall dafa wor dafa def haute trahison dañu bugg ngeen def une procédure de mise en accusation fa may daanelee nag mooy euh, ñàkk yemale ak ñàkk tollale bi am ci dëkk bi il faut mu jeex gis ngeen kaawu kilifa gannaaw bañ ko piégé parce que dossier bi poursuite sax waru ci yoon am yónni ay nit ñu yor ay caméra di enregistré ay nit loo xam ne ci biir oto ci biir nekk et cetera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 ñu jàppaleen leen flagrant nga bàyyi leen ñu dem ñi nga xam ne corps de contrôle yi jàpp nañ leen ñu détourné ay milliards nga bàyyi leen ñu dem ba pare jàpp ay nit parce que d'accord ñoo yow rek ku ci faqastalu sax nga jël dugal ci kaso bi loolu du yoon te ñu ngi woo Sénégalais yëpp ñu mobiliser wu le 10 prochain mobilisation exceptionnelle pour dénoncer injustice yooyu nga xam ne ñu ngi koy jaarale ci li nga xam ne moo waroon yemale ñëpp muy justice ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum di wax nag ni fàtte woon naa ko wax ci version française bi suñu mbokk piir yi gannaaw li amoon Tambacounda yéen yëpp ngeen gis ko te loolu sorewul wala wutewul ak li xew ci kaaw Barthélémy Dias fii kenn du fi nangu ay nit song la yor ay gànnaay nga jox leen seen bopp sa bopp ñu rey leen ñu rey la nga dem toog yow rek ay ñàkk ak sa njaboot boo défendre sa bopp rek bu doon li li li li gaañu wala li faatu si la jóge ñu suul dossier bi ñun assassiné nañ suñuy militant ba léegi kenn waxu ci waaye bu dee si ñeneen la jóge ñu jàpp la ne dañuy tëj tey ñu ngi jàpp nit euh, militant pur tëj ko 15 ans bi mu nee day def appel ñu ne nañu corser dossier bi daal di demander perpétuité mooy menaces yooyu ñuy def ci nit ñi boo defee appel ñu corser dossier bi yooyu bokk na ci injustice yi am ci réew mi te il faut ñu dénoncer ko il faut ñu wax ko te yeewi askan wi dootu ko nangu yeewi askan wi dootul nangu leader de l'opposition war a nekk nag fu mu nekk ci dëkk bi di gëstu fu mu nekk ci dëkk bi di tiit loolu jeex na du ñu ay délinquants du ñu ay criminels comploté wuñu mais on est des citoyens et nous avons le droit de dire que nous nous opposons parce que constitution moo ñu ko may dootuñu nangu yenn yi ñu ngi leen di gërëm leen